toggalee loolu jox la ko dangay ngay defe ne problème bu rëy rëy sa kanam moo tax baat yi ni koy toggalee léeg-léegi mooy indi jafe-jafe moo tax lu ñu la mën di jox muy li ñu ñummuñ jox la ko danga koy tas boo ko tasee par baat bu noppi xool baat bu nekk ndax am na maanaa wala amul maanaa soo noppee soo ko toggale waatee su la joxee maan da xam maanaam wér na moo tax la léegi wax yi dañ koy nuraleeg euh, doomu suppame suppame ñaa ngi jégalu ci misaal waaye suppame ay xollit la boo boo ko bàyyee mu ne ñu mënoon koo gis xamul dara day jàpp ne dara daa ne ci biir waaye fi ne boo ko xolli par xolli da ngay xolli ba xolli di jeex tàkk dara du fa des nga gis ne ay xolli yi ñu tegal woon dong la dara newu ci biir naka noonu tam nag wax yu baree bari ñu koy wax di ko jàppe problème yu réy réy nit ñi di ci discuter di ci waxtaan léeg-léeg ñu xuloo ci ba jàppante ci te moo boo ko tasoon baat par baat du tekki lu am solo moo tax rôle waxtaankat wala boog ñi ñuy tuddee intellectuel maanaam mooy ñi nga xam ne nii ay xeltukat lañ seen liggéey dëgg dëgg ci askan wi mooy ñuy jël baat yooyu di ko leeral jéem koo leeral nit ñi ba mu leer ci seen bopp ñu xam ne lii lii lay tekk su fekkee amul maanaam ñu door a xam ne amul maanaam xëy na kon tomb bi ñu waxtaan tey te mooy baatu xorriya baatu sañ-sañ baatu liberté foofu la solom di ñëwee ñu waxtaanee yi foofu lay amee solo ñu waxtaanee ko ba xam dëgg-dëgg baatu liberté li muy tekki ak bu ñu ko waxee lu ci jublu ak naka la koy naka lay feeñ ci biir askan wi loolu mooy xëy na foofu lay ñëwee. baat boobu tam dafa leerul ndax ñu kenn nit ñëw ne la lii mooy liberté ne lii mooy sañ-sañ nga am sañ-sañ lii lay tekki dëgg dëgg dëgg ñun ñëpp ñu daal ciy dëppoo léeg-léegi day jafe lool. moo tax ñàkk a leer googu ñu ñàkk a leer léeg-léegi nag ci la ñu baree bari sukkandiku bay tuumaal lislaam ci lu bari ñu bari dañ naan lislaam day xeex liberté day xeex liberté doomu aadama dañ daan lislaam mu ngi sukkandiku ci noteel ak forcé nit ki ci ne ko nii ngay doxale rawatina ci wetu pas ñu bari dañu jàpp ne foofu lislaam da ciy forcer nit ñi ne leen par force lii ngeen di gëm amoo sañ sañu gëm leneen ni ngay doxee nga xam dalay forcer ci lépp ñu bare bari ñàkk baat bi ñàkk comme ñàkk leer moo tax ñu jàpp ne lislaam daa ñëw ngir xañ nit ñi seen sañ-sañ ak seen doxalin ak yu mel noonu ngir ñu mën a leeral nag ni ko suñu Ablaay waxee léegi danañ jéem a leeral leeral baatu xorriya baatu bu ñu ko waxee liñ ci jublu su ko defee nag léegi liberté nag dafa ñu bari sax léegi dootuñu wax liberté muy benn waaye dañu ay liberté la wax ndax day baat boo xam ne nii moom kese kese boo ko jëlee du neexut a leeral waaye dañuy xool ni mu manifesté woo ci biir askan wi bu nekk ñu jël nañ cay manifesté woo ñu xool ba xam lislaam ndan la ca gis ca manifestation ba nga xam manifestation liberté la na ko lislaam na ko la ko lislaam ndax da koo dàq wala da koo saxal wala da koo nos buñ ca noppee dañ gis ne yu baree bari ñoon wax ne lislaam day ñëw di ci xeex sañ-sañu doomu aadama dañuy gis ne loolu ñàkk a dégg moo waroon ñu koy wax waaye lislaam xeexu kon daañu waxtaane maanaam liberté ni muy manifesté woo danañ ci jul jël yenn waxtaane ko bi njëkk mooy liberté ci wàllu xalaat sañ-sañ ci wàllu xalaat moom sa bopp ci wàllu xalaat liberté ci wàllu pas-pas moom sa bopp ci wàllu pas moom sa bopp ci wàllu wax sa xalaat ak ni nga ko gisee moom sa bopp ci wàllu tuxu déplacé wu ci biir àddina bi ak fu la neex dëkk ak toog fa nga bëgg a toog moom sa bopp ci wàllu moomeel am loo xam danga koy moom ci kenn du ca kenn du ko jalgate wala kenn du ko jëfandikoo te neexu la yooyu yennati la ci nga xam ne nii liberté danañ ci manifesté wu bu nekk danañ ko jël xool ni ko lislaam jàngale ak moom ban gis la ci am su ñoppee na door waxtaan wi muy tëj kon noonu la fas yéenee waxtaan wi kon bu ñu nee baatu muy tekki dëgg-dëgg waxoon nañ ci njëlbeen waxtaan wi dana jafe nga indi benn waxin woo xam boo ko waxee ñëpp dañ ci ànd ak yow ne li nga wax loolu mooy liberté moo tax dañuy wax taarif jaamih maane mooy taarif boo wala boog xamle goo xam ne nii lépp lu bokk ci liberté da ko ci génne te lépp lu ci bokk da ko dugal ci biir loolu dana jafe ñu am ko ci baatu liberté ndax dafa bari fu ñu koy jëfandikoo xeeti xam-xam yépp koy jëfandikoo li ñu wax science exacte daf koy jëfandikoo li ñuy wax science sociale daf koy jëfandikoo maanaam xam-xam gëstu ci wàllu nekkin doobaanam daf koy jëfandikoo ni ko yi jëfandikoo waaye bu ñu ko bëggoon dënk dañuy wax ne rek liberté wala moom sa bopp mooy mbooleem jëf yi nga xam ne nii dañ koy jëf nu koy jëf kem ni ki nga xam ne nii noonu lañ ko gisee noonu lañ ko bëgg a jëfe te lenn lu lay forcé day jóge ca bitti lenn lay forcé day jóge ca bitti ñëw ne la par force nii nga koy déggee wala nii nga ko gisee wala nii nga koy defee du am jépp jëf joo xam ne ki koy def mu ngi koy jëf coobar boppam te amul lenn lu koy forcé lu jóge ci bitti ak nu mën ci tudd loola bu amul rek dañuy daal di wax ne jëf joojee mën naa firi wàllum liberté wala boog mboolem ne fii nga xam dañ ko tànn ñu tànn ñu tegal la sa kanam yu baree bari nga war a tànn nga mën a tànn lan la neex te lenn du la forcé ci tànn gi ba te loola bu amee dañuy wax ne loolu liberté lay firi wala boog sañ-sañ day dugg foofu loolu nag bu ñu ko xoolee day mën nañ koo xool ci dimension yu bari mën naa ñëw ci wàllu diine war naa ñëw ci wàllu xalaatin mën naa ñëw ci ci wàllu doxalin ci kaw suuf bu dee ci wàllu diine foofu problème liberté daf fiy jël ni muy posé woo mooy diggante nit ki ak jëfam yow sa bopp li ngay jëf ban relation la nga am li ngay jëf ndax li ngay jëf daf laa neex sa coobare kenn force wala kenn def la ko nga di ko def topp ca kon nga war a gàddu la cay juddoo ci a tef yëpp nga war ko gàddu wala boog li ngay def lépp daa fekk mu doonoon loo xam ne nii dañ la ko bindaloon yépp ngay ñëw nga xam mëntoon a ñàkk nga def ko nga xam ne kon yow daanaka amoo ci benn sañ ci def geeg ñàkk def gi ndax dañu la ko bindaloon njëkk ngay ñëw noonu la problème liberté di posé woo ci biir diine foofu nag bu ñu xoolee ñi gëstu ci wàllu diine dañ ciy xaajaloo lu mu néew néew ñaari xaaj mën nañuy tudd ñaari xaaj yoo xam ne nii dañoo safaanoo benn xaaj bu njëkk bi mooy ñi nga xam dañoo gëm ni doomu aadama lépp lu muy def ci kaw suuf fekkoon nañu bind ko mëntoon a ñàkk bañ koo def te nam ko defee noonu dong la ko mën a defe kon nga xam moom amu ci lu mu ci def ak def dong la ci war waaye mënu caa dindi lenn loolu aw déggin la ñooñu ak groupe lañ ci wàllu diine ñoo xam dañoo gëm ne nit dañ koy dem sax ba la ko message ne nit ni ngay waxee garab gi mi ngi meññ wala ndox mi ngi daw noonu ngay waxee nit ki mi ngi def boo ne nit ki rey moom nga nekk ndox maa ngi daw ñooyam ndax ku ndox ku nekk xam ne dawal boppam bu dawee dañ koo dawal nit tam ku du defee dañ koo defal waaye moom ci boppam du def kon nit amul mën a amul man mën a def ak dindi kon day mel ni amul ci la muy def bu ñu leen toppee ci xalaat yi nga xam ci lañ tëdd beneen group bi ñooy ñi nga xam dañoo gëm ne nit suñu borom moo ñu bind waaye bi ñu bindee ku nekk daf laa defal man-man sa biir daf laa defal li ñuy tudd iraade mooy volonté daf la ko defal sa biir nga am sañ-sañu jëf ak bañ a kon dañ naan lépp loo jëf sa sañ-sañ nga ko jëfee ndax yàlla bindal na la man-man boo xam ne ni mi ngi sa biir man-manu jëf ak bañ a jëf yàlla bindal na ku nekk nga mënoon a jëf wala nga bañ a jëf kon boo jëfee yow la neex nga jëf boo jëful yow la neex nga bañ a jëf te kon la cay tukkee ci warteef lépp nag day gàll ci saw loos kenn du la gàddul sa responsabilité ñaari groupe yooyu ñoo gën a fés ci ñuy waxtaan ci wàllu liberté ci suñu digganteeg maanaam suñu borom ci jëf ji ñuy jëf boo xoolee nag ñi nga xam ne nii dañ naan la nit ki moom amul sañ-sañ ñu def ak dindi loolu fi wax xel mënu koo nangu ndax dañ naan la ngir ñu mën a wax ne yàlla ku maanu la il faut que ñu nekk ñu nangu ne nit am na sañ ñu def ak dindi ndax su fekkente ne amoo sañ ñu def ak dindi kon la ngay def ñu la cay mbugal bu ñu la ci mbugalee day mel ne maanaam maanu teg suñu borom foofu dañ ciy mën a xalaataat moo tax ñu njëkk ñi ne kon ngir ñu mën a saxal ne yàlla ku maandu la ci ay jëfam ak i wax ak léppam lu maandu la kon dañuy jàpp ne nit ki am na sañ sañ ñu def ak bañ a def bu ko defee bu defee sunu borom jox ko ca yoon bu deful suñu borom mbugal ko ndax mënoon naa def te bañ a def kon loolu moom lay firi maanut ak suñu borom ñu mën koo saxal ngir ñu mën a saxal diine rek ci tënk il faut ñu nangu ne nit nit ci boppam dafa am sañ sañu liberté dafa am na si liberté def ak sañ sañu def ak bañ def te loolu mooy mën a firi yool ak mbugal yool balaa mën a tudd yool day fekk nga def la nga war a def mbugal mooy loo xam defoo li nga war a def nga def leneen lu ci nekk nag day jàpp kon yow la neex nga defe ko noonee bala neex neexoon nga bañ koo defee noonee nga gis ne kon problème la boo xam day dellusiwaat ci wàllu maanute ak suñu borom bu ñëwee nag ci wàllu xel xalaat wala boog ci wàllum philosophie maanaam ñi nga xam ne xel xalaat la jëfandikoo ñoom dañu jéem a jox liberté jox ko beneen dimension te mooy dimension boo xam ne ni day dellu ci yëg-yëgu nit ki ci mooy ruuxam wàllu spiritualité nit ki ci lañ koy jéem a waxtaane ñoom dañu gis ne liberté nit mooy nit ki goreel boppam wala boog firi boppam ci lépp loo xam ne nii mën na koo gàllankoor ci dox gi dox ngir saxal ak nekkam ngir saxal nga mën a saxal sa nekk ci kaw suuf parce que nit ngir mën a saxal ak nekkam ci kaw suuf mooy nit koo xam day mën a def di dindi waaye boo fi nekkee te mënoo def mënoo dindi sa nekk ak sa ñàkk nekk duñ kon ngir nga mën a saxal sa nekk ngir nga mën a saxal sa nekk ngir nga mën a jëfandikoo sa xel ak sa xalaat ni nga ko bëggee te mooy sa tex ak biir dañoo gis ne mooy nga goreel sa bopp ci bépp gàllankoor boo xam ne nii moo xam sa yar sa yaram lay aju wala beneen gàllankoor boo xam day ñëw jóge ci bitti ñëw taxaw sa kanam mooy nga fexe ba gàllankoor yëpp nga mën koo falang goreel ci sa bopp firi ci sa bopp ba mën a jëf àgg wane sax nekk yow ci kaw suuf wane tam jëfandikoo sa xel ba mën a am texe xel gi nga xam moom la moo ñu tax a jóg moo tax nag dañuy gis ne kon dëgg te mooy xaqiqa li ñuy wax dëgg moo wala boog vérité wala boog réalité dëgg-dëgg mooy loo xam bu ci nit xasee àgg moom ci boppam moo dul bàyyeeti ngay dem di jaamu ay bànneex ak i bëgg-bëggi bakkan ba mu lay gàllankoor ba dootoo mën a wane sax nekk wala sa sa sa gis-gis moo tax ñoom ci ñoom liberté tekkiwul ngay tànn ci ñaar yu bokkul waaye liberté dëgg dëgg rek mooy nga goreel sa bopp ci yépp lu lay gàllankoor ba nga mën a saxal sa nekk wala boog lépp loo xam ne nii dalay lay puus ngir nga mën a jëfandikoo noo xam dëpp wut xelum doomu aadama te loolu mooy li ñu wax lu bon ñun lu bon mooy loo xam ne nii xelum doomu aadama nanguwu ko ci ñoom lépp loo xam dana dox si digganteeg jëfandikoo lu bon loolu boo ko mënee falang ba mën a jëfandikoo lu baax mooy am nga liberté kon dañ ñoom boo ko doon topp ci cëppaandoo ci dina liberté mooy nit ki taqoog lu baax di ko def def lu te def ab safaan ki am liberté dëgg dëgg mooy ki nga xam ne nii dafa taqoog lu baax di ko def te du def ab safaan kon ki am liberté dëgg dëgg mooy ki nga xam ne day tënku ci wàllu jikko yu baax yi ak ci melokaan yu baax yi waaye nag gannaaw bu mu dëmbandikoo ci xam kon dangay ngay ci xam ngir mën a tànn dëgg wala boog mooy volonté bi nga xam yàlla defal nañu ko te ñuy puus ci def lu baax di bàyyi safaan moo tax ñoom dañuy dem ba ci cappaandaw ñu ne kon liberté ak xam benn lañ nit ki saa yoo xam yokkoo ci wàllu nature bi ni mu saa yoo xam-xamam yokkoo ci wàllu xéewal gi suñu borom def liberté day gën di yokk kon looy gën di xam xéewal suñu borom gën di xam yàlla ni mu bindi àdduna bi sa xam-xam ci gën di yokk sa liberté day gën di yokk kon daf ko yokk waaye du ko wàññi moo tax ñoom dañ koy tënk ne saa sama xam yokkoo xam gi may xam dëgg ak lu baax saa yi gën a yokk sama liberté di gën di yokk ndax damay gën a tënku ci lu baax kon ñoom dañu gis ne tënku xam lu baax ba noppi tënku ci loolu mooy liberté ci nit ci ñoom ñi nga xam dañu sukkandiku ci wàllu xel xalaat kon bu ñu xoolee ci wàllu diine noonu lañ koy gisee ñoom bu dee ci wàllu xel ak xalaat kese ñoom noonu lañ koy gisee am nag beneen dimension boo xam liberté daf koy mooy dimension opérationnelle bi maanaam ni ñu koy jëfandikoo ci sunu dund foofu tam bu ñu fi ñëwee dañuy gis ne day am lu am solo lu fiy jëmmal mooy ñu gëm ne kon nit ki bu nekkee ci kaw suuf moom mooy xool tànnal boppam ni mu bëgg a mel mu mel ko ci ñoom liberté dëgg-dëgg mooy nit ki mooy xool ni mu bëgg a mel ma mel ko ñoom dañu gëm ne nit ku nekk na nga mel yow la neex nga mel noonu bu la neexoon nga mel ne nen loolu lu xaw a kii la waaye noonu lay demee ci misaal dañ naan la tey man su ma su ma nekkee sàcc man la neex ma def sama bopp ab sàcc bu ma neexoon ma nekk kenn nit ku sàcc kon soo baaxee dalaa neex nga baax soo soo nekkee ci safaan dalaa neex nga nekk ci loolu nag boo ko tànnalee sa bopp dañ lay gëmloo ne la jéem a assumer ses responsabilités yaa ko tànnal sa bopp jéem koo gàddul sa bopp boo ko jéem a jiñ kenn nag fi nekk naan diw ma ko teg wala yàllaa ma bi gëmal ne yow la neex nga mel noonee bu la neexoon nga mel neneen loolu mooy mooy mooy dimension opérationnelle ci kaw suuf nga xam ne kon nit ñëpp dañuy gëm ne kon man mii ni ma mel man la neex ma mel ne kon nag li ci juddoo lu nekk sama kaw ko jéem a yanu dama ko jéem a jiñ keneen moo tax ñoom dañuy daan la nit amul lay amoo lay ci lenn wenn lay wooyu mën a lay ci ne nii ma mel loolaa tax déedéet nangul ne ni ma mel man maa ko melal sa bopp sama bopp man la neex ma mel noonu bu ko defee kon bu ko jéem a jiñ keneen la ci juddoo nag kon ci warteef yépp nga jéem koo gàddul sa bopp moo tax loolu nag boo ciy dox ci biir ñoom dañ naan la kon bu fekkee yaa ngi doxe noonu nag jàppal ne kon yow melokaan wi nga mel dangaa jàpp ne àdduna bépp noonu lañu waroon a mel ndax da ngaa jàpp ne mooy melokaan bu baax comme da ngaa jàpp melokaan bu baax nag jàppal ne ko àddina bépp noonu ñu waroon mel moo tax booy dox di jëfandikoo man-man bi la yàlla defal ci biir jàppal ne aw yoon ngay rëddal mboolem doomu aadama ci kaw suuf ñi ci kaw ñu suuf ñëpp yaa ngi leen di rëddal aw yoon ndax yoon wa nga rëdd da ngaa jàpp ne moo baax kon ñëpp ci la ñu waroon a jaar boo gëmee yoonu may rëdd nag ñëpp laa koy rëddal da ngay xam ne am nga wartee fu mag a mag ci rëdd gi ngay rëdd te loolu bu ñu xoolee ci ci xadis da ciy ñëw am na xadis bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne képp koo xam da ngaa xàll yoon wu baax am nga ci bi yoon waaye képp ku jaar ci yoon woowu am nga bi yoon ci jaar gi mu ci jaar waaye képp koo xam ne yoonu safaan tam am nga bàkkaar ci yoon wi te képp ku jaar ci yoon woowu yow am nga bàkkaar ci yoon ci jaar gam ca jaar loolu mooy tënk daanaka donte ñoom ñaar bokkuñu fi ñuy waxe kii ci diine lay kii di waxee ci xel xalaat waaye dañuy gis ñoom ñaar dañuy daje ndax xel ak diine duñ wuute buñ wuutee rek leneen na ci dugg waaye xelum kese kese ak diine kese kese duñ wuute ñoom ñaar dañuy daje kon da nga gis ne donte niñ jël jëlee tam niñ jëlee tomb bi wuute na waaye dañuy dajawaat foofu ci ne nit ki bu gëmee ne moom libre na mooy koo xam dafay gëm ne li may def ñëpp war nañ cee mën a jaar te bu ñëpp jaaree day baax moo tax liberté ak responsabilité dañoo taqaloo duñ ko kenn mënta wax nit ku liberté amul responsabilité waaye itam kenn mënta wax nit ku am responsabilité amul liberté ñoom ñaar dañuy ànd kon soo nee diw am na sañ-sañu def ak dindi mooy diw am na responsabilité boo nee amul sañ-sañu def ak dindi amul responsabilité kon ñoom mënuñu tàqalikoo moo tax ci diine su fekkee dañ laa forcé wala nga juum wala nga fàtte doo ci am responsabilité wala boog doo ci am responsabilité bu ma sëkk ci jëf jooju nga xam ne nii moom nga jëf kon ba liberté balaa nekk liberté day ànd ak responsabilité kon nag li ñuy gis léegi muy koo xam day topp baatu liberté ba jàpp ne moom mooy tegg ay responsabilité yëpp tegal ko fële nu ko neex def lu ko neex wax lu ko neex jëf loola moom mooy mooy ay caaxaan mooy fawda mooy anarchie bi maanaam kalimi kon liberté balaa tudd liberté day ànd ak responsabilité bu ñàkkee ànd ak moom xëy na leneen lay tudd waaye doo tudd liberté bu ñu sukkandikoo nag ci loolu ñu xaw a développé noonu ci wàllu taarif bi dañuy gisee kenn mënta sukkandiku ci lislaam wala ci njàngaleem lislaam ba mën a dàq liberté bi doomu aadama ndax lislaam li muy njëkk a def mooy mu kàllaf mu nekk la ngay def du la mooy mu kàllaf mu nekk bu sart yi dajee ci yow nga amum xel lépp li ci daje wat li daje ci yow mu daje ci yow lépp loo def sa responsabilité la boo deful sa responsabilité la kon l'islam ci départ ñu ngi sukkandiku ci masuliya responsabilité te responsabilité mi ngi sukkandiku ci liberté ndax nit ki mënta nekk am responsabilité amul sañ-sañu def ak dindi kon kenn mënta sukkandiku ci njàngaleem l'islam pour dàq ne islam day dàq liberté doomu aadama xëy na nag njuumte lu mag li nga xam ne nag moom ci lañ nekk ñu ñëpp wala boog ñu bari ci lañ nekk mooy jamono ji ñu toll ñu baree bari dañuy làqatu ci gannaaw respons dañuy làqatu ci gannaaw liberté pour def lu leen neex def lu leen neex loo xam ñu ci xool ñu am nañ ci warteeku ñu gàllu seen loos maanaam lu la neex def te doo jéem assumer benn responsabilité ñu baree bari dañuy làqatu ci gannaaw liberté pour doxale noonu te nag jafe-jafe yu baree bari yu ñuy dund ci àdduna bi tam lu mel noonu rek moo ko indi waaye su fekkoon képp kuy jëfandikoo sa sañ-sañ boobu yaa ngi gëm ne la ngay def am nga ci responsabilité lu baree bari doo ko def kon nag lislaam tënkul kenn gàllankoorul kenn waaye nag teg na aw yoon yoon yooyu nag xëy na bu ñëwee ci wàllu liberté ni muy manifesté woo ci lay gën a feeñe kon loolu mooy tënkub baatub liberté ni ko ñenn ñi gise ci wàllu diine ak ci wàllu xel ak xalaat ak ci wàllu doxalin ci kaw suuf ak li nga xam ne nii moo ca war a juddoo bu fekkente ne nit ki gëm na ne am na liberté boobu waxoon naa léegi nag ne liberté dootuñu wax benn liberté ay liberté la ñuy wax ay xorriyaat yu bari la ndax baat bi dafa dafa rafle wu maam dafa dafa nekk baat bu rafle woo rafle wu ba boo ko bëggoon a xam le noonu noonu rek ci xalaat nii rek dana xaw a jafe waaye dañuy xool ni muy manifesté woo ñu jëm cee xool dana manifesté wu ci wàllu xel ak xalaat lu ñu tuddee sañ-sañu xalaat buñ delloo ci ni ñuy waxee doomu aadama tey bu ma ne woon nit mooy kan nit mooy lan danga naan ma nit de mooy ndundat loo xam ne nii day xalaat kon boo bëggoon a définir doomu da nga naan nit mooy ndundat loo xam ne nii day xalaat kon xalaat mooy dëgg dëggi doomu aadama mooy dëgg dëggi nit bu ñuy wax nit xalaat tax ñuy wax moo tax saa yu nit demee ba ñàkk capacité xalaat mënatu amatul xel amatul xalaat weneen tur lay jël dootu jël turu nit dañ koy tudde weneen tur woo xam ne nii doon turu nit kon nit balaa tudd nit day fekk muy xalaat mën a jëfandikoo xalaat xalaat nag suñu borom daf ñu ko mooñaane fi ne nit ni muy juddoo di lekk di naan noonu ak yeneen yi nga xam ne daf koy judduwaale yeneen yi nga xam ne daf koy judduwaale noonu la nit di judduwaale xalaat ku nekk dangay ngay judduwaale xalaat moo tax dana jafe lool lool nga mën a xalaat ne lenn mën naa xañ doomu aadama xalaat fi ne amul lenn ci àdduna loo xam ne nii mën naa dox diggante nit ki ak jëfandikoo yëg-yëg boobu ndax yàlla daf ñu ko mooñaale waaye nag xalaat bi ñu judduwaale lenn la waaye xalaat bu ñu orienté jubbanti ko teg ko ci yoon tam leneen la xale bu ndaw buy juddu lekk ak naan daf koy judduwaale waaye aw lekkiin ak naanin dañ ko koy jàngal lekkiin ak naanin dañ koy jàngal nit waaye lekk ak naan moom nit daf koy judduwaale xalaat tam nit daf koy judduwaale aw xalaatin moom dañ koy jàngal nit dañ koy orienté mu tegu ci yoon moo nit kenn mën koo xañ xalaatam waaye nag mënees na ko wax xalaat bi deel xalaate nii ak nii ak nii teg ko ci yoon noonu lay demee fi ne tey nit bu juddu woon nga bàyyi ko noonu rek ci lekk naan googu yëg-yëg boobu defaroo ko nu ko leex lay lekke nu ko leex lay naane mën naa dem sax ba lekk loo xam day jàpp ne amal na ko njëriñ te amalu ko njëriñ ci misaal xale la léeg maq suuf te ku ne xam ne suuf si daf koy lor kon il faut ñu xamal ko ne ko kat am nga sañ-sañu lekk naan waaye nag del lekk nii deel naane nii tey bu fekkoon ne xale bi daa judd kenn jàngale ko nu muy lekk nu muy naane mën naa dem ba doon mag bu boo ko joxee lekk mu jël gémmiñ gi dëmp ko ci comme ni bàyyi may def di lekk gémmiñam waaye dañ ko xam ne kot loxo ngay lekke loxo ndeyjoor ngay lekke da ngay raxas da ngay def ni ak def ni noonu tam xalaat bi noonu rek la mel xalaat ku nekk da koy juddwaale waaye nag orienté la xalaat tegal la ko ci yoon loolu moom dañ la koy jàngal nit ki mënees koo ne xalaat waaye nag mënees ko orienté mu teg ko ci yoon wan ko tam ne ko domaine yi ak yii mën nga cee xalaat mu amal la njariñ domaine bii ak bii boo ci xalaatee du la amal njariñ mën nañ ko ne kat mën ngaa xalaat ci li yàlla bind mu amal la njariñ lool àddina bi ni ko yàlla bind li ci nekk ci ay phénomènes yoo xam ne si na ko jàngat xalaat ci mu génne la njariñ yu baree baree bare bëri orienté sa xalaat foofu ci àddina bi waaye nag bul orienté sa xalaat ci jëmmi xalaat ci jëmmi yàlla ci boppam ndax jëmmi yàlla ji moo gën a yaatum xel xel mënu koo mënu koo peeg bu comme mënu koo peeg nag bu ca xalaatee lam ci xalaat lépp lépp lépp maanaam coono buy dem ci neen lay doon ndax da nga ciy sonn dépense ci énergie bu bëree boo xam mën nga ko jëfandikoo feneen te du la jëlee njariñ kon nag ñun la comme nag boo ci nekkee bëgg cee xalaat da ci yàq sa xalaat bu bëree bëri te doo jëlee njariñ kon nañ la orienté xalaat bi nga jëfandikoo ko ci ni yàlla bindi àdduna bi li ci nekk ci phénomène yëpp nga mën koo xalaat mën cee génne loo xam ne dalay jariñ jariñ nit ñi ci teew ak ëllëg foofu la ñuy jëmee moo tax kon lislaam noonu la liggéey foofu kon lislaam doxut nit diggante nit ki ak xalaat waaye nag daf lay orienté ne la xalaatal fii ak ak fii fii fii bu fi xalaat ndax boo xalaatee fii da nga jariñu te boo xalaatee fii doo jariñu kon lislaam sax contraire bi dafa ñëw ngir garantir nit ki sañ-sañu xalaat sàmmal ko tam nag te bu ñu xoolee civilisation yi nga xam jurit ñoo ko taxawal yépp dañuy gis ne loolu daf ci feeñ bu baax a baax a baax ndax alxuraan soññ nañu ba tàyyi ci dee leen jëfandikoo seen xel ak seen xalaat ci àdduna bi bala ngaa def dara dara xalaatal la ciy juddoo lu bare ba ci aay yi ma xam ne ni daf ñu soññ ci ñu jëfandikoo xal xalaat dem na ban la xalaatal foo mën di xalaat fu mën di àgg ci asamaan ci suuf ci jaww ji xalaatal kenn tënku la ndax foofa mën nga faa jële njariñ moo tax ci alxuraan dañu jàng mu lay wax dee leen dox ci kaw suuf dem leen fu nekk dee leen xool waaye fu ngeen mën dem na ngeen yóbbaale seen xel ak seen xalaat di dégg di gis di analyser di xool ba xam leen amal njariñ ak leen amul njariñ daal ne nag gis du gumba gumba du ñàkki bët waaye gumba mooy xel mu du dox xel mooy gumba waaye nit mu bët yi moom léeg-léegi nit mën nay xool te du gis nit ki ay bëtam muuru damay gis lu baree bari loo xam ne ciy xool du ko gis loolu nag mooy xel xalaat ci gis tënk sax xel ci bo xalaat ci boppam day dem ba nekk farata ci diine ab jullit léeg-léegi xalaat day ne ci moom farata léeg-léegi moo tax lislaam ubbi bunt bu yaatu ci wàllum xalaat ndax xam ngeen ne àdduna day soppi ko jamono yi nekk yu bees day judd te lislaam moom alxuraan wàcc na ba ma sëkk boobaag léegi ëpp na junniy at te junniy at li fi soppi ko ay xew-xew yu bees yu baree bari ñëw fi kon loolu naka lañu war a def lislaam nañu lépp lu ñëw di lu bees jëfandikoo leen seen xalaat ngir mën a ballu lu ngeen koy yoonale ci lu njëkk la loolu mooy ijtihaad ijtihaad ci lislaam mooy farlu farlu li muy tekk mooy lan mooy xew-xew bu bees ñëw na lislaam nga jëfandikoo sa xel ngir génn ci taxawaayu lislaam ci xew-xew bees boobu loolu boo boo xalaat ku dul xalaat mënu ko farlu ci lislaam xalaat la te bis seet nag lu bees di ñëw ñu war koo wutal atte kon ictihaad day ubbi buntub xel xalaat ci lislaam loolu mooy baatu baatu ictihaad kon ictihaad mooy lu xew lu bees ñëw na gisuñ ci atte nga jëfandikoo sa xel ngir ballul atte bi ci yenn atte yi nga xam moo jiitu woon ci alxuraan wala ci sunna wala yaa xam fa koy jëlee kon sañ xalaat ci lislaam lu ñu garanté la waaye nag dama ko tënk foofu rek lañ koy tënkiwaat fii mooy gannaaw ba lislaam dafa ñëw ngir organiser dundu doomu aadama gi xalaat am solo lool ci dundu doomu aadama mëni su ko ñàkk bañ nos kon lislaam day nos aw xalaat ni la lay tegal waaye dox sa diggante ak xalaat ñaari nag léeg-léegi ñu bari dañ koy jaawale ñu nosoon na ko ak ñu tere la ko dañoo bokkul nosal la ko mooy jaaral la ko yoon ba nga mën koo jariñoo aaye la ko nag mooy ñu aaye la ko définitivement nga xam doo doo doo ko mën a kenn xalaat léeg-léeg sax mu ne la par force da ngaa a xalaat ci lii waaye nag lay tëral yoon wi ngay xalaate nosal la ci yoon mooy ni ma ko waxoon léegi ci xale bi dañ koy wax ne ko del lekk nangam del naan nangam bul lekk nangam bul naan nangam ndax loolu boo ko defee def lay lor noonu tam la ñuy def ci wàllu xalaat del xalaat ci lii ak ci lii bul xalaat ci lii boo xalaat ci lii dana la amal njariñ lii boo xalaatee du la amal njariñ kon loo rek la kon sañ-sañu xalaat ci lislaam moom nangu nangu nañ ne lu ñu garanteel la nit ki ci lislaam yoon wi ñu koy defee nag ci la lislaam di tëral beneen manifestation liberté mooy li ñuy wax sañ-sañu pas-pas maanaam nga fas ci sa xol li nga gëm maanaam la nga bëgg gëm nga gëm ko ci sa xol xëy na bu ñuy wax critique ci lislaam nag ci wàllu liberté nag fi ñu gën maanaam critiquer l'islam wala boog ñenn ñi fi ñu gën a critiquer l'islam day dellu foofu ci wàllu pas-pas ndax ñoom dañoo gis l'islam nanguwul liberté ci wàllu pas-pas maanaam dalay forcer dalay imposer ne la par force lii nga war a gëm ñu koy feeñal ci ñaari mbir mën na ko waaye dañ ci ñaari mbir lu mel ne baatu tubbi tubbi tubbi mooy nga dugg ci lislaam nga dem ba ne lislaam doyatu la nga génn foofu dafa am at bu mag bu léeg bu nga ciy teg bu ci lislaam di ciy teg ñenn ñi ci ne la kon lislaam day forcé nit mu loolu xëy na bu ñu ko analyser danañ gis ne wut nag li am baatu jihaad ci misaal léeg-léeg ñun leen islam dañuy dem xeex ak yow forcé la ci jaasi dugal la ci lislaam loolaat xëy na bu ñu leeralee baatu jihaad danañ tax ñu xam ne lislaam forcé wut kenn ci wàllu pas-pas ndax li ma waxoon léegi ci wàllu xel ak xalaat pas-pas kenn mënu koo forcé nit fas-fas li ngay fas sa kenn mën na ko forcer ndax mbirum biir la yëg-yëgu biir la maanaam fa muy nekk loxo àggu fa ab yar àggu fa dara àggu fa ci yow dong yaa ko yëg sa biir kon kenn mën laa forcer ci li ngay fas ci sa xol loolu kenn mën ko même su dañaa ñëw ne par force da ngay gëm lii te bëggoo koo gëm xëy na métit gañ lay teg mën naa tax ngay wane ci kaw ne gëm naa ko waaye ci biir gëmoo loolu nag nit ki fekkee daa wane ci kaw aw doxalin woo xam bokkut ak lëm gëm ci biir kooku am na weneen tur ci lislaam am nañu koy mooy am nañu koy tuddee ci lislaam kooku nit nit kooku lislaam soxlawu ko moo tax amul soxla ci imposé nit ki pas-pas ndax su la ko imposé ba nga nangoo ko ko tam te ko keneen nit lay jur koo xam bëggul islaam bëgg ko kooku sax moom la lislaam gën a bañ ci nit ñi te mooy am naa feq kon pas-pas lislaam du ko forcé kenn te it loolu lislaam teel na koo xam nag moo tax ñu teel ñoo jàngal ne diine forcé amu ci la ikraha fi diin ñëpp dañ koy jàng del waxaat ne dem lu baax ak loolu dëgg kum safaan leer na nañ kum neex gëmal kum neex wedd loolu loolu alxuraan la yëpp ay alxuraan la yoo xam bi njàng alxuraan dañ ko ciy fekk foofu na xëy na balaa ñoo gën a avance dañ dañ leeral ci ne loolu tekkiwul ne lislaam ak yeneen pas-pas yi ñoo yem tekkiwul ne lislaam daa yem ak yeneen diine yi waaye principe bi la waxtaan ndax lu gëm-gëm ne lislaam moo gëm moo gën yeneen diine yi tekkiwul ne dañ la koy dañ la koy defar set te sax am na xalaatkat mag a mag boo xam ci fii la dëkk ci njaboot gi la bokk day wax ne inna diina indallaahi islaam waaye inna lislaam maanaam diine ca yàlla mooy lislaam waaye lu ñu tuddee diina te baax it lislaam la tudd kon tekki ne diine yi dañoo yam dañ leen di yamale waaye nag li ñu bëgg wax rek mooy principe lislaam mooy du force kenn ci diine ji loolu tam mën nañ ci indi ay lee tegtal yu baree bari yoo xam bu ñu delloo ci civilisation yi nga xam jullit dund nañ ko dañ ko ciy fekk bu ñu demee ci fatu màkk nga xam yonent bi mu ñëwee màkk ubbi ko caxal fa islam dugg fa booba doole ji mu fa duggee bari na lool lool lool waaye ku nekk gis nañ jëflante ak ña fa fekk ba ñëwee ba duggoo pare ba mbooloo ma ñi nga xam ñoom lañ jàmmaaroo ba ñëwee bañ ku nekk wax bañ waxee ba noppi mu laaj leen ñu tontu dañ leen leen boyal nañ leen néew kenn par force ngeen nekk lislaam déedéet ngeen dugg ci lislaam ku ci dugg ci lislaam yaa xool ba lislaam neex la nga ñëw dugg waaye kenn force wu la ci ba mu leen na leen ne imposé leen par force kon ngeen nekk ay leen laajee ñu tontal la ñuy tontal ba wax leen dem leen léegi nag boole nañ leen kon ku del si ginnaaw bi nga del si kon forcé wu leen ci diine ji Omar ibn Xattaab radiyallaahu anhu bi mu ubbee Quds ba mu jullit yi bañ demee Quds ba ba domine dëkk ba moom ko kilifa dëkk daf na leen Omar ci boppam mooy ñëw bu ñëwee ma jébbal ko dëkk bi Seydina Omar moo jógee Madina dem Quds mu jébbal ko dëkk ba ba noppi waxtaan ak moom Omar na ko léegi dañ leen jëlal yi mooy kenn dox seen diggante ak seen église seen jaam li ngeen bëgg a jaamu seen croix yi ngeen yor kenn dox seen diggante moom kenn du leen forcer kenn du leen soppiloo ngir seen diine loolu kon tegtal la ci ne kenn forcé wu kenn l'islam du forcé kenn kon pas-pas ndax pas-pas kenn du ko koo forcé kenn kon jërut nga ciy dugg di ko jéem forcé kenn mu des nag kon xëy na mbirum tubbi dugg ci lislaam ba mu yàgg nga génn wala mbirum jihaad danañ ci leeral tuuti door a jàll mbirum tubbi bu ñu ko bëggoon a leeral dëgg-dëgg dañuy wax ne système bu nekk day am li ñuy wax règlement intérieur règlement intérieur ci mbooloo mooy mbooloo mu nekk bu ñu ko sosee dañu am ay charte yu ñu teg dañu naan mbooloo mi ku ci nekk nii ak nii nga ciy duggee boo duggee ci biir mbooloo mi lii ak lii moo la war boo ci bëggee a génn nii ak nii ngay def waaye nag boo duggee ci biir boo defee nangam ak nangam nangam ak nangam ci ay sanction dañ la ko teg loolu mooy règlement intérieur mbooloo moo dem am na ko mbooloo moo dem am nañu li ñuy wax règlement intérieur mooy boo ci duggee ci mbooloo mi kat par force nii ngay doxe nii ngay waxe lii ngay jëfe boo ko deful daañu teg ci sa kaw ay daan loolu mbooloo yëpp am su ma jëloon misaal mu gàtt moo xam moo ñu gën a jege rek maanaam wala lii ñuy def rek mooy coupé mooy football football rek ku ne xam ne ne kenn forcé wu ci kenn yow lay neex nga di ko def wala nga bañ ko def waaye na soo xasee ba ne bokk naa ci équipe bi ngeen dugg ci terrain bi football ay sart yu métti métti ñu lay gàll yoo xam ne nii day métti boo boo loo def rek am na am na am na mu ñu teg sa kaw ci misaal amoo sañ-sañ yi jekk jekk génn ci terrain bi te arbitre la génnal wala boog jox la ndigal boo ko defee am na am na am na sanction bu ñuy teg sa kaw loolu nag li muy woyof woyof misaal moom li muy woyof woyof mooy xeetu mbooloo yi doomu aadama yi def yëpp mbooloo mu nekk day am lu koy tënk lu koy tënk bu ko defee nag boo jalgatee sart ya mbooloo ma teg nag am na mbugal moo xam ne ni leer nañ la boo ko jalgatee mbugal moomu day ñëw ci sa kaw ndax loolu bu ñu ko deful li mu indi mooy dañuy jax-jaxal mbooloo mi day gis koo xam dafa bëgg a tas mbooloo mi day daal dugg ci biir jax-jaxal ko ba mu neex mu génn dem yoonam bu ko defee mbooloo ma jaar ca tas te loolu alxuraan moo ko moo wax ne dañu ñëw gars yi dañuy ñëw ne xuuru amanna bihi wacc an nahar wakfuru axirahu bu leen bàyyi dañuy ñëw ci suba xëy ñëw ne ay jullit lañ dugg ci biir dem tuuti ñëw weddi ne man kat damaa jàppoon ne lislaam nii la ma nekkati melul noonu bu ko dee fekk nañu dañoo yàq moo tax ñu dugg ci biir moo tax mbooloo mu mënti doon boo ko péegul ak organisation interne boo xam ne nii mooy tax nit ki bu ci duggee xam ne caaxaan dugg ci génne boobaa mbooloo mi lu ko tas day yomb mbirum tubbi nag foofu lay gën a dugg foofu lay gën a dugg moo tax ci yenn gëstukat yi dañuy wax ne problème mu tubbi problème politique la gën a nekk ci problème pas-pas moom la gën a ci problème pas-pas ndax da boo boo tubbee tooñoo pas-pas bi waaye système bi nga tooñ ndax dañoo teg ay sart nii ak nii nga ñëw jalgati sart yooyu sart mbooloo ne ku ko jalgati ku nekk am na sanction yu ñu war a teg moo tax ñu ne kon tub bi mbooloo mi lay gën a laal ci pas bi moo tax mbugal mi ci ñëw ñenn ñi ne dañ koy rey xëy na ñun comme dañoo tënk ci mësëb loolu la ñuy wax ni ko ñëpp di noonu lañ koy waxee waaye ci gëstukat yu baree bari dem nañ ba ne ñoom gisuñu luy tegtale ne kutub bi dañ koy rey waaye li ñu wax tanzir mooy dañuy xool par rapport ak tooñ gi mu def ñu xool mbugal mu tollook moom ñu teg ko loolu la ñuy def waaye kenn du ko rey moo tax xëy na loolu nag comme ñun dañoo tënk ci mësëb ñun li mësëb wax la ñuy wax waaye fi xeex ci yenn gëstukat yu baree bari gëstu nañ ba ne tub bi ñi ko def système bi lañ gën a laal ci pas-pas bi ndax même kooku boo ko forcé woon tey ba delloosi ko ci lislaam tam dalee woon am naa fekk ngay delloosi waaye du amul amul lu njëriñ kon kooku dañ koy seet sanction bu ñu ko war a teg par rapport ak moom li mu def tooñ gi mu tooñ mbooloo mi ñu sanctionné ko noonu loolu xëy na ku dellu ci téere bi nga xam ne euh, alxurriyatul aama fi dawlati islamiyya Cheikh Rachid Gannousi moo ko taalif boo ci demee dana leeral mbirum tubbi da ci leeral lu bare bari ci ni mu nekk rela mbirum politique xëy na loolu ku ci bëgg a yaatu mën nga caa dellu kon loolu mooy mbirum tubbi kon da bi ñu teg la ba ngay dugg ci lislaam waroon ngaa gëstu ba mu leer na lislaam neen la kat boo duggee doo génn comme nag gëstu ko ba mu leer lislaam boo ci duggee doo génn nga dugg ba ci biir nga bëgg génn bu ñu la tegee sanction xam na yaa ko def comme ni ko mbooloo yëpp di defe bu ñu xoolee mbirum jihaad jihaad tam ci lislaam ñu ba dañ naan ñu jullit dañuy xeex ak nit ñi ngir imposer leen seen diine yaakaar naa bu ñu delloo ci bàllu jihaad du xeex kese-kese jihaad baat bi la boo xam ne nii maanaam mënuñu si ko firi ci yeneen lakk yi ndax terme la term nag mooy loo xam ne nii fii ne ab téere mën nga ko cee bind benn baat la waaye mën nga cee bind ab téere moo tax duñ ko jéem a firi ci wolof jihaad rek lañ koy wax lim làmboo dafa bari kon jihaad xeex kese kese te xeex bi jullit doon def it tekkiwul dañ koon def ngir imposer nit ñi lislaam waaye benn dañ leen a tooñoon ñu ñëw jàmmarloo ñoom wala dañ leen a ñuy défendre wala boog ñu séqoon ak ay nit ay loo xam dañ ko siñe woon nit ña dem ba firi lañ siñe woon defe neneen ñu jàmmaar lak loolu kon day mel ni position boobu lañ amoon lañ gënoon am ci ci diine ji te li koy firndeel dem mooy ñaare bu ñu xeex ñoom ba gañ leen tam duñ leen forcer ci diine dañ naan la xoolal bu la neexee nga dugg ci diine ji bu fekkee da ngaa bëgg a toog ci la nga newoon tam nag day am loo war lool ak lislaam ndax islaam léegi moo lay aar service yi nga xam état islamique moo ko moom da koy jëfandikoo kon nag am na looy joxe muy galak bi boo joxee galak bi nag mën ngaa kon na ci la nga newoon lislaam di la aaraale boo neex nga dugg ci lislaam ku nekk xam na ne yonent bi xeex na ay nit ñu jàpp ay nit ay prisonnier kenn forcé wu leen diine ba ñëwee dañ ne leen kat jot leen seen bopp am ñoo xam ne nii feral ji ab julit lañ jote seen bopp kon jihaad du pour force nit ngir mu dugg ci lislaam kon yooyu yu leerul la leeru ci bopp nit la ñu war koo leeral xëy na bu leeree dañ xam ne loolu lépp nekk dafa am nit xel xel mën na ko expliquer explication bu leer nañ am nag loo xam ne dañuy te conquête conquête mooy futuhaat yi fat conquête mooy loolu problème soog civilisation moo ko indi maanaam tey yaatal gi ñoo yaatal li dem di xeex ba dem Europe dem feneen ak feneen loolu xëy na di woon lislaam kese kese waaye nag problème civilisation loon boo xam ne nii moom dafa posé woon loolu jamono yu ku nekk xam na ko waaye bu dee jihaad moom nii rek lañ koy firee kon liberté ci wàllu pas-pas l'islam xañu ko kenn l'islam li mu jàngale mooy ku nekk am nga sañ-sañu xool ba mu doy la bu la doyee nga dugg bu la doyul bul dugg waaye daal xamal ne boo dugg am na règlement intérieur boo xam islam moom la am boo ci duggee nii ak nii nga ciy nekke boo ci defee nangam nangam la ciy fekk boo defee nangam nangam fekk la ci bu la na nga dugg bu la doyut nga bàyyi waaye nag boo xasee dugg nag bu ñu la tegee sanction yooyu bu ko jéemee firee ne l'islam dafa maa forcé kenn forcé wu la ndax yaa jalgate sart mbooloo mi yaakaar naa nit nag amul xel te ko jëfandikoo nag lu mënti doon balaa nga caa dugg da nga jàngat xool la la ci mën a fekk ak la la ci mënta fekk càmbar ko ba mu doy la nga door dugg boo duggee nag assumer sa responsabilité mooy li ma waxoon léegi rek ci départ bi beneen bi nga xam ne tam liberté ci manifesté wu mooy li ñuy xoriyatu ra'yi wa taxbir mooy liberté am sañ-sañu xalaat ak wax sa xalaat am sañ-sañu am gis-gis ci mbir mi ba noppi wax ko loolu tam mooy ñu may nit ki nga mën a am gis-gis lu nekk nga am sa gis gi ba noppi nag ubbil la bunt boo xam ne nii da nga mën a wax sa xalaat ni nga ko bëggee te dara du la ci fekk kenn du la xatal kenn du pression sa kaw waaye dañ lay bàyyi nga wax sa xalaat ni nga ko xalaatee loolu mooy contraire li ñuy wax dictateur maanaam koo xam ne nii dañ dañ naan la fii daal benn xalaat rek moo fi am kenn amul sañ-sañ wax beneen xalaat boo waxee xalaat bu wuteeg boobu ñu daal sa kaw kon nan xool ba xam lislaam moom may na nit ñi ñu am sañ-sañ wax seen xalaat wala déet ci lislaam damaa jëlale sax ñu la koy may waaye léeg-léegi farata lay doon caw obligation ci yow warteef ci yow li nga xalaat nga wax ko ci façon yu bari nag bu fekkee ci lislaam dañuy wax mabda u sóora mooy diisoo diisoo ku nekk xam ne ne ñëw na ay yoon ci lislaam santaane na ngeen di diisoo seen biir diisoo na ku ko wax wax nga wax sa xalaat ndax bu ñuy diisoo da indi sa xalaat man sama xalaat ñu màndaxe xalaat bu gën a jub ñu jël boobu te loolu lu sax la ci lislaam ay ndigal la wa amrum sóora baynahum wa saawiruhum fil amr loolu ay ndigal la yoo xam ne ni suñu ko joxe tegtal la ci ne kon wax sa xalaat moom léeg-léegi farat lay doon ci ci lislaam du mën di ñàkk lay doon ñëw na ci xaddis yenn saa nettali ne diine yàlla ji laayante biir la wax ko ñett yoon ñu ne ko kan lañuy laaye biir mu ne laayante biir seen digg ak suñu borom suñu digg ak yonent bi waaye suñu digganteeg suñuy njiit ak suñu digganteeg jullit yëpp nag wala doomu aadama yëpp laayante biir suñu digganteeg suñuy njiit nag mooy ñu leen di wax suñuy xalaat bu ñu naree dugg ci mbir ñu wax leen la cay suñu xalaat bu leen doyee ñu jël bu leen doyit ñu joxe suñu xalaat waaye diw mooy sama kilifa nga gis ko muy dugg ci mbir loo xam ne leer na ne yow am nga ci xalaat boo xam ne nii moo xëy na xëy na mën ngaa jàpp moo gën a jub bi mu yor te waxoo ko ko loolu njumte la loolu islaam nangu ko gis ngeen ko ci jàng nañ ko siira yéen xara yum dem yoo xam ne ba la mu bëggoon def saxaaba yi ne ko te ñoo defee nii leen yéen a xam seen biir àddina bàyyi lam jàppoon ñoom fekk si fekk si lañ ci lañ lañ bëggoon sa kilifa li muy nekk nekk sa kilifa su soxlaa diisoo jox ko sa xalaat na ko gisee jàpp ne noon la nga joxe ko noonu bu ko doyee mu jël bu ko doyut mu jël beneen xalaat waaye bu ko nëbbu sa mbokkum jullitam xalaat bu mu la mënti laaj wax ko na ko gisee te bu ko nëbbu ndax boo ko nëbbee rek lor nga àgg na sax ci ne la sax jihaad bokk jihaad bi gën a kawe li ma waxoon léegi jihaad jihaad du xeex rek waaye àgg na ci ne bi gën a kawe mooy nga fekk kilifa gu néew ci dëgg nga wax ko dëgg neen ci ci lislaam li gën jihaad yi gën a ko min azami anwaai jihaad kalimatu xaq fi waj sultaanin bokk na ci xeeti jihaad yi gën a màgg nga sa kanam kilifa goo xam gis nga ne newul ci yoon nga ne ko sëñ bi nekkoo ci yoon lii mooy yoon kon foofu la foofu la wax sa xalaat foofu la ak ci lislaam ci mag ñu baax ñi ñu jiitu woon te daan xalaat ak gon nañ ci ne la as saakitu alal xaq seytaanun axras nee nañ ko gis dëgg ba noppi noppi bañ caa wax dara nee nañ saytaane su luu la seytaane su luu saytaane su mënta wax la mooy ki gis dëgg ba noppi waxu ci mooy saytaane kon wax sa xalaat ak ni nga gisee ak ni nga xalaat loolu kenn du ci du lu ñuy laam-laamee ci lislaam léeg-léeg day nekk farata waxuma laak nag ñu la koy may du lu lay may waaye léeg-léeg sax dañ la farata la ci yow nga def ko boo ko deful leneen war na caa mën a fekk kon diina ji mu demee noonu kenn mënta taxaw naan lislaam day dox diggante nit ñi ak wax seen xalaat déedéet waaye nag ni ma waxoon ci jëmle gi rek lislaam dafa ñëw tam pour organiser wax sa xalaat googu itam bu ñu la ko def lool dañ la ko dañ koy tegal ci yoon dañ la koy tegal ci yoon ndax ndax sañ-sañ moom bu ñu koy organiser rek ay caaxaan lay jur ci mën doon dañ koy organiser moo tax alxuraan nañu nag ah wax leen seen xalaat nag waaye nag wa jaadilhum billati hiya ahsan booy wax sa xalaat tam da nga tànn nag waxeen wi na rafet bul bul bul bul bul sog maanaam bul laal yëg-yëgu ñu ci des waaye waxal sa ni nga gisee te teg ko ciy teggin ak waxin woo xam nit ñi dañ ko mën a dégg waxaat ne wa quulu linnaasi xusnan nit ñi bu ngeen wax ak ñoom na ngeen daan waxee ni xam ni ngeen wax wax nit ki dëgg bokkut ak nga nga di ko jam ci yëg-yëgam nga ko wax dëgg gu leer naa ñu xam li nga wax dëgg la te doo ko doo ko ñàkkee teggin doo ko ñàkkee waram kon waxin wi xëy na moom la ñuy xool xëy na loolu nag moo ñu wuutale ak yeneen yi bu dee ñooñu ñoom dañoo gis ne am nga sañ-sañ wax sa xalaat moo tax am nga sañ-sañ sax taxaw ci rajo saaga ku la neex am nga sañ-sañ taxaw ci tele wax nit lu ñaaw lu la neex nga wax ko teg ci deru nit te léegi sax doo ko teg fenn loolu nag bokkut ak sañ-sañ wax sa loolu ay caaxaan la loolu ay ay lay indi ak yàq deru loolu taxut ñuy wax kon lislaam nee na la waxal sa xalaat am nga sañ-sañ waaye nag na nga xam ni nga koy waxee aw waxin dafa am kon loolu may sañ-sañ wax sa xalaat moom tam bu ko tënkee ci lislaam ñu gis ne kon moom tam doxul diggante kenn ak wax sa xalaat waaye nag waxin wi moom la ñuy bëgg nga di ko xool foo toll sàmmante teggin yi nga xam ne nii mën ngaa jàllale sa li nga bëgg a wax te doo wax kenn lu koy lor beneen bi nga xam ne ni liberté dana ci manifesté wu mooy ci wàllu déplacement maanaam dëkk fi la neex ci kaw suuf loolu dem dañ koy jàngat ci biir lislaam ci lislaam lislaam li ñu gëm la mooy ne suuf seek asamaan si lépp yàlla boo ko moom nit itam yàlla daf ko teg ci kaw suuf mu war ko wuutu ci kaw suuf pour dundal suuf si kon yàlla ñu ay limite ci kaw suuf ci lislaam frontière amul frontière yi ñuy wax ni yëpp gannaaw bi lañ ko fi rëdd waaye lislaam nangu ko suuf seeg li ci nekk lépp ak asamaan si sunu borom moo ko moom nit itam yàlla moo ko wàcc ci kaw suuf fu mu gis ne war na faa mën a dëkk bu ko neexee war na faa mën a dëkk kon frontière yi ñu rëdd gannaaw bi loolu sax lislaam daf ko nangul moo tax lislaam nañu kon nag ci kaw suuf fu leen neex dem leen pour mën a wuti wërsëg pour mën a wuti xam mën a wuti xikma fu ngeen ko dégg dem leen fa jëli ko ndax suuf si yàlla moo ko moom loolu sax day àgg ci ne la léeg-léeg day doon force ci yow nga génn dem feneen xam ngeen ne dañu nekk ci ne yowmal xiyaamee am na ñoo xam dañuy ñëw su leen yàlla laaj bu ñu leen laaj li tax ngeen ne ñun ko dañoo néewoon doole moo tax fañ ëppoon doole force ñu dañu def la nangam nangam dañ naan leen xanaa suuf si yaatuwutoon ngeen gàddaay dem feneen moon ngeen lu teewoon a tuxu dem feneen fa ngeen mën a dëkk ngeen dëkk fa ngir mën a doxal seen diine kon léeg-léeg suuf si yàlla moo ko moom kon léeg-léeg sax déplacé wu suuf si farata lay nekk foofu nag bu ñu koy comparé ak yeneen ñi nga xam dañuy ŋàññi lislaam naan lislaam day xeex liberté nga xool ñoom ni ñuy doxale tey am na réew yoo xam boo fa bëggoon dugg tey pour nga am seen visa donc doy na liggéey condition yi méttee métt lañ lay teg pour may la visa visa bu ñu la ko may na la nangami fan nga fi am bu jeexee da ngay génn réew mi séjour bañ lay jox balaa ñu la ko jox condition yi dul liberté nangam maanaam sañ-sañu déplacé wu ak ak ñu mel noonu kon ñooñu amuñ li ñuy jàngal lislaam ci fànn boobu ndax lislaam moom réew moo mënti dem bu fekkee gis nga ne fa nga fa la sa wërsëg ne sañu dem fa wuti ji ko ndax amul frontière kon loolu lislaam dafay organiser rek dafay ñëwaat ba tey pour organiser kon nag lislaam ni mu organiser li njëkkal ci wàllu xalaat organiser wàllu sa pas-pas ci maanaam sañ-sañu jëfandikoo sa pas-pas sañ-sañ wax sa xalaat noonu toom lay organiser nag sañ-sañu déplacé wu ci kaw suuf si ngir wut loo am wala ngir dëkk wut dëkkuwaay bu neex daf lay nelagat fu la neex demal waaye nag wala tufsidu fil baax ba'da islaahiha bul dem fenn nag di ko yàq yàlla defal na suuf si noppi nag foo man dem demal waaye nag bul yàq bul yàq suuf si yàq suuf si mooy ci misaal tey nga ñëw ne man kat damay wut xaalis fekk forêt boo xam dañ koo classé ngir ne day amal njariñ askan yépp day amal ni nga ñëw dagg forêt bi ngir fa loolu am da ngay ifsaad fil ard loolu bokkut ak sañ-sañu fa la neex dëkk kon fa la neex demal dëkk waaye nag ci sart bul yàq bul yàq suuf si gannaaw bu ko yàlla defaree ba noppi loolu sax gën naa garaawlu nee nañ la ki nga xam ne dañuy wër di yàq ci kaw suuf si ñoo ñun mbëggal méttee mét la ñeen teg da ñenn ñi dañ leen rey ñenn ñi nañ dagg seen i jër ak la ñeen war a teg yëpp ci ay daan yoo xam fuqaa mën nañ koo leeral kon ba tey foofu dañu gis sañ-sañu toxu ci kaw suuf déplacé wuti wërsëg wala wuti dëkkuwaay bu neex lislaam xañu ko kenn waaye nag organiser na ko organiser gi mooy demal fu la neex waaye bul yàq bul fekk fu ñu defar ba noppi sa intérêt dong tax nga bëgg koo jëfandikoo di ko yàq loolu la ñuy aaye mu des beneen bi mooy xoriyat tamalluk nga am sañ-sañu moom moom itam moomeel moomeel nga am sañ-sañu loo moom moom it bu ñu doon xool àdduna fi mu toll tey nii ñaari idéologie ñoo ci gën a siiw benn bi mooy ñi nga xam ne nii danoo gëm ne kenn mënut moom dara état mooy moom état mooy moom nit du moom dara donte nag état moo la yoral lu baree bari waaye yow moomoo moo dara yaag sa bopp yaag yaag li nga yor lépp état moo ko moom bu ko defee lekkoon yow da liggéey ni nga war a liggéeyee waaye état moo moom alal ji day xool li nga soxla woo li faj say soxla mu jox la ko li ci des mu téye ko ngir faje ko yeneen soxla yi ñeneen ñi ci des loolu benn ci benn idéologie nga xam ne ni am nañ ci àddina ci la bokk beneen bi mooy ñi nga xam dañoo ëppal ne la nit moo moom lépp état moomu dara te nag li nga moom yaa ko moom nu la neex nga koy defee nu la neex nga jëfandikoo tam yoonu kenn néewu ci ñaar yoon bu ci nekk dangaa ëppal ndax nit ñi dem ba bëgg a xañ nit ne ko moomoo dara ak ëppal la waaye nit ñi ne la nga moom yaa ko moomtu la neex nga ci defee ak ëppal la foofu tam lislaam kon bu ñëwee day taxaw ci digg bi jéem ko nos moo tax ci lislaam dañuy nangu ne nit ki am na sañ-sañu moomeel am na loo xam yaa ko moom sa moomeelu bopp la kenn sëñ cee soppaxandiku te àndu si àndu àndut ak sa gërëm maanaam gërëm la woo ko mu doon am amoon soppi kon am nga sañ ca àq ci moom ay mbir lu mënti doon am nga sañ sa ji àq ko léeg-léeg dañ la koy jagleel ràññee la nga xam yow dong yaa cay sañ jëfandikoo ndax loolu doomu aadama moom moom la yàlla mooñe noonu nit ku nekk yàlla daf laa mooñaale nga bëgg ak moomeel dafa bokk sax sañ-sañ yi tegtal yàlla jox nañu sañ-sañ man-man mooy dañuy bëgg ak moomeel dafa bokk tam ci caractère yi nga xam day nit ñi def ci ràññi mooy bëggu moomeel te boo ko xañee nit ki mën naa jur ak yambare fii ne day nit ki boo fekkee da ko ne amooloo moom na mu war a doxee du doxe noonu na mu war a liggéey mën naa bañ a liggéey noonu ndax day gën ni lu mu sonn sonn moom moo moomu dara waaye su fekkee yëg na ne moom li muy liggéey moo koy moom ak moomeelam lay doon da koy soññ ci ngir muy liggéey gën a farlu gën a gën a kon mooñ googu yàlla moo ñaale bëggeelu moomeel lislaam dafa koy teel a xam moo tax lislaam mooy diinul fitra diina joo xam ne nii ni yàlla bindee nit ñi loolu lay sàmmoonteel ci doxalinam doomu aadama yi di leen indil gisin woo xam ne nii da di day jóge ci kaw daanu seen kaw déedéet waaye day xool ni yàlla moo ñu nit ñi mu mu xar mu génn ci système boo xam ne nii ci lay doxal nit ñi moo tax réew yi nga xam ne nii dañoo gëm ne kenn moomul dara booy xool tey ci àddina ci wàllu développement économique ci réew yi gën a tardé ci la ñuy bokk ndax nit ñi dañu liggéey da day jurug tàyyel nañu war a liggéey dañu liggéey noonu waaye boo xoolee réew yi nga xam ne ni tam dañoo booyal moomeel doomu aadama bu ëpp nit ñi dañuy am da gis ay benn benn ñooy am ay millions ñooy ñàkk am na réew yoo xam doy ba fa demoon tey ñu leen di ñoom jàpp ne ñoo ëpp doole ci àdduna bi am ñoo xam ci ay des mbalit ci la ñuy dund dañuy wër mbalit yi di tànn la ñuy dund foofu lañ koy jëlee te moo ne booy xool ñu ëpp ay alal ci àdduna bi ci foofu lañ nekk waaye kon bëgg dañ lay bàyyi ne la alal ji yaa ko moom nu la neex nga koy jëfandikoo bu ko defee ku am dund ku amul dund noonu la ñuy doxee loolu nag boo ci gis na ngay gis ne kon am na ay rëq-rëq yi ci nekk kon wàllu koom-koom ci lislaam ni ko lislaam nose mooy dañ la nangul ne am nga loo xam ne nii yaa moom kenn du la ci fekk te sax dañ la koy sàmmal bu ko nit sàccee wala mu fëkk ko wala yu mel noonu lépp am na mbugal mu metti mu ñuy teg ca ko def xam nga ne sàcc mbugal mu metti moom lañ ci teg moo xam ne nii ngir nit ñi ku nekk bàyyi nit ak lam moom ñu sàmmal ko ko gëm ne moom moo ko moom lépp loo xam ne da koy menacé tam ci wàllu moomee googu tam lislaam daf koy sàmmal naka noonu tam dañ naan li nga moom tam am nga sañ-sañu jaay ko am nga sañ-sañu lii ko am nga sañ-sañu tayle ko am nga sañ-sañu maye ko am nga sañ boo fi jógee nañ ma ko joxal diw ak diw wala boog nañ ma ci joxal diw ak diw loolu lépp ci xeetu jëflante yoo xam mën nga ko jëflante lislaam nangu la ko dafay saxal ne am na loo xam ne yaa ko moom te kenn du ko moom waaye nag ni ñuy organiser fépp noonu la ñuy organiser moomeel googu kon bu ñu nee moom lii itam nag dañ la koy nosal ne la yaa ko moom kat sañ nga cee jëfandiku waaye nag sart yi ak yi itam il faut que bàyyi xel ngir mu bañ moo tax ñu tegal tënk yoo xam ne nii moomeel gi du du du du du maanaam du laalanteeg maanaam njariñu njariñu ñeneen ñi ci ci misaal te ñun moom alal ji moom waaye nag riba moom dañ la ko aaye bu ci jëf ci misaal tey man nga maa lebal waaye nag bu ma lebal ne ma ba boo may fay da nga may tegal loolu dañ la koy aaye moom bu la neexee nga lebal ma ko bu la neexee nga bañ ma ko lebal waaye nag sañoo ma koo lebal ba noppi ne boo may fay da nga ma ciy tegal loolu dañ la koy aaye alal ji maa ko moom su ma neexee ma jaay ko waaye uma sañ-sañu kooj ko su ma ko koojee am na lu ñu daan ñu may teg xaagata ak yeneen yu bare bari uma tom sañ-sañu denc ko nit ñi soxla ko war koo jëfandikoo ma denc ko ngir seera ko yooyu yëpp dañ ñu koy aaye donte yaa moom alal ji waaye nag dañuy tegal sart yu ne ndax loolu boo ko defee sànq njariñul mbooloo te njariñul mbooloo mi nag dafay bokk ci li nga xam dafay yitteel lislaam sañ-sañu moomeel googu nag ci lislaam amul góor jigéen ñëpp ci bokk ñëpp ci bokk yam naka noonu tam dañuy tegal ne la alal ji yaa ko moom waaye nag dañoo bëgg nga génn ko di ko di ko di ko investir maanaam di ko di koy yaxal maanaam di ci liggéey ngir ne yaa moom alal ji waaye ñi ci des man cee jariñu ndax boo ko dencee rënk ko ci barab da ngay lor ñeneen ñi nga xam ne war nañoo mën a jariñu te duñ jariñu te loolu tamit lislaam daf koy te da ngay xañ alal askan wi mu yokk ni mu war a yokkoo ak yeneen àq yoo xam ne nii daf islaam daf ko ciy teg kon loolu tegtal la ci ne sañ-sañu moomeel lislaam nangu na ko waaye nag dañ koy organiser ba loraange du ci juddoo comme ni ñuy organiser yeneen sañ yi nga xam ne nii noonu lay demee kon loolu mooy xorriya wala boog sañ-sañ ci ni ko lislaam gisee am na yeneen manifes nu muy manifestation yu baree bari yoo xam ne ni mën nañ cee tudd yu baree bari yoo xam ne ni mën nañ cee jàngate ni lislaam dëgg de ñëwul pour xeex sañ-sañ kon sañ-sañ ci wàllu xalaat yàlla moo ñu ko mooñaale kenn mënu ko xañ kenn moo tax lislaam nangu na nit ki di xalaat léeg-léeg sax mu ne la farat la ci yow nga xalaat waaye nag dala koy organiser ne la del xalaat ci fii te bul xalaat fii ndax boo xalaatee fii dañ la amal njariñ boo xalaatee fii du la amal njariñ sañ-sañ ci wàllu pas-pas kenn mënu ko imposer kenn ndax mbirum biir la kenn mën la imposé pas-pas waaye nag itam daañ la xamal ne la pas-pas boo xasee dugg nag lii ak lii moo la ciy fekk amatoo sañ-sañu génn loolu itam leeral nañ ko ci biir waxtaan sañ-sañ ci wàllu wax sa xalaat wax nañ ko léeg-léegi neen léeg-léeg di àgg ci nekk farata nga xam warteef lay doon ci jullit bi mu wax xalaatam ak sañ-sañ ci wàllu moomeel ak sañ-sañ ci wàllu toxu ci àddina bi fu la neex yooyu yëpp wax nañ ci bu nekk ni ko lislaam jàngalee ak lam ca teg ci njàng kon loolu sëñ yi nga xam ne nii waris na ko mën a jukki ci buntub liberté ci ni ko lislaam jàngale xëy na nag muy loo xam ne nii problème la boo xam ne nii yitteel na àdduna bi lool léegi ndax ñi noonu lislaam ñu ngi ciy tuumaan lislaam lu baree bari ba àgg sax ci jenn benn benn benn ci yi nga xam ne nii danoo am ni ñoo xoolu dañoo ëppal ci seen pas-pas maanaam dañoo taral ba ëpp léeg sax booy wax yu mel nii dañ naan la yow da ngay maanaam li nga wax dëppoowut ak lislaam ndax ñoom dañu jàpp ne yi ma wax léegi lépp lislaam nang mag am na ci beneen gis-gis ñu ci gis kon muy tomb boo xam ne nii bu ñu jàngatee lislaam ci wàllu xel rek dana leer te lislaam nag dàqul xel dafa bëgg sax nit kii jëfandikoo xelam moo tax xëy kon di ko waxtaanee ngir di ko leeral gën a leer ci bopp nit ñi ñu xam ne lislaam xañuñu ay liberté xañuñu ay sañ-sañ waaye daf ko organiser sañ bu ñu organisé wul nag ay caaxaan lay jur kon noonu lay dem moo tax kon lislaam taxawul ci diggante kenn ak liberté ak sañ-sañam ndax jàpp nañ loolu yàlla moo ñu ko mooñaale te lislaam day sàmm ak ni ñu yàlla mooñaale moo tax nit ku nekk booy juddu liberté ngay judduwaale képp koo gis ñu tudde ko jaam rek wala ñu teg ko njaam rek daa juddu ba noppi moroom doomu aadamaam ne moom ak yëg-yëgu biiram la topp ba jaam def ko jaam loolu la kon ak njaame wala njaam nit day juddu ba noppi ñu def ko ci moom waaye kenn du ko judduwaale ñun ñëpp bu ñu juddu noo bokk nu ñuy juddoo moo tax Omar ibn Khattab waxoon na ne leen wala boog waxoon na ne leen naka ngeen defee nit ñi ay jaam gannaaw bu leen seeni soxna bu leen seeni waajur juree ci ak ngor ngeen bëgg leen def ay jaam loolu mënta nekk kon ku nekk booy juddu liberté ngay judduwaale kon bu ñu la ko tënkee rek sa moroom nit na yow moo ñëw tënk la waaye kenn tënk la waaye nag judduwaale judduwoowaale ak tënk kon lislaam itam loolu sàmmonte na ak moom ñu gis itam naka la naka la garante naka la aare liberté doomu aadama tàmbalee ko ci pas-pas ba ci ni ñu ko waxee noonu yëpp waaye nag dañ koy baamuwaat liberté bi ñuy wax nga xam ne daf koy judduwaale wuute na ak jëf ji ñuy def ngir wane ne man damaa am liberté ndax li ngay def ngir wane da danga am liberté léeg-léeg ci ni joxe ba def dugg ci ñu wax taxaruriya taxaruriya mooy li ñuy wax libertinage mooy nga jëfandikoo nu la neex te jàpp ne amoo ci benn responsabilité loolu bokk ak liberté bi nga xam ñun moom la ñuy waxtaane fu mel ne fii kon lislaam nangu na liberté day ñëw nag ngir organiser ko ni mu ko organiser nag mooy mu lënkale ñaar te mooy ak masuliyé te mooy responsabilité responsabilité boobu nag moo lay wan li nga war a def ak li nga war a def li nga war a def ak la nga war a def ak noo koy defee ak la cay juddoo lépp nga natt ko door a loolu li sootaal moo la koy may mooy itam la nga war a def war a tànn nga tàmm ko te kenn du la pose kenn du la impose ne li nga koy tànne loolu lay doon waaye nag ñàkk responsable mooy julli ci des loolu duñ ko waat ñëw nañ ci ay yoon yoon kon liberté ci lislaam mooy nga xam ne lii mooy lu baax tànn jub ak lu baax nga tànn ko te kenn du la ci far kenn du la ci farcé loolu rek mooy tënku liberté buñ ko doon tënk dañuy wax ne mu ngi mel ne ñu tegoon la ci ñaari marchandise ne bii mooy original bi bii mooy faux bi léegi nag tànnal yaakaar naa ne bu fekkee ànd nga ak sa xel tey tànn jàpp naa ne original bi ngay tànn waaye doo tànn faux naka noonu tam nag mbaax akub safaan buñ la taxalee mbaax ak safaan nee nag léegi am tànn jàpp nañu boo ànd ak sam xel lu baax ngay tànn waaye doo tànn safaan bi kon sëñ Ablaye loolu lañ bëggoon tënk ci waxtaan wi dellu di sa dellu di sa gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah